asalaamaaleykum man la Baba Elite Marketing Pro tey ben machine à leen di présenter mooy machine torréfaction café yi comme euh, café bu grain bi la ñuy jël def machine bi mu coco. ko daal koy def en poudre poudre café bobo la ñuy pour mën un am café Touba souvent nag bi ma nekkee Chine gars yi dañ ma ko doon laaj tax une petite vidéo pour wax leen pourquoi ce projet quand la am projet bi ak euh, clientèle bi ni ciblé comme bo amé ce genre de projet ak financement bi ñaata la lay dik ak yoyu tamit ñu ko ñu terminer vidéo bi wax ci côté rentabilité bi hmm, pourquoi ce projet lañuy commencer moy partie numéro un bi ndax Sénégal gis nañ ne gars yi dañuy consommer café Touba bu baax a baax café Touba bokk na ci produit yi gars yi di gën a consommer Sénégal parce que kër gu nekk boo xoolee bu ñu yeewoo dinañ segg café taat ci barkeelu dem parce que loolu moom cosaan la ci Sénégal on a constaté que gars yi dañ ko doon saaf ci kër yi mu dem ba benn instant gars yi di jël ay machine locales yi di ci saaf te bii nii machine bi nga xam ne dafa mucc ayib la dala koy saafal au centimètre près quoi ki waxee yow dosage bi nga bëgg mën nañ ko saafee noonu après nga am ko machine bi dina saaf euh, chaque douze à quinze minutes mën nañ ci saaf quinze kilos quinze kilos kon boo xoolee ci une heure rek war na mën a saaf quarante kilos kakakakak café te quarante kilos café boo xoolee dina nekk quantité bu bëree bëri kañ lañ amoon ci projet bi bo xolé man ci pressing la ko commencé won pressing activité bu dox la gaay yi xam nañ ko Sénégal bu baax mais machine yi boo xoolee comme ay euh, parti yu ni Touba djourbel wala côté Gossas Kaolack bëriw fa noonu té projet bu wara mëna dox la té gaay yi xam nañ né ñi ñi ciblé la plupart moy kër yi wala xew yi wala magali wala ki gaay yi bu ñu amee yenn activité yi dañuy dem ci marché yi di jënd quantité café yu bëri yow bu fekkee ne da ngaa am sa projet am say café bopp saaf ko teg ko sa place ku soxla dafay ñëw mu jënd ci ko foofu euh, financement bi du cher parce que euh, avec euh, juste cinq millions mën nga am machine bi mën nga am local bi mën nga am accessoire yi ñuy soxla yëpp yëpp yëpp yëpp boo xoolee ci vidéo bi dama leen di defal description won leen comment emballage yi mooy bu ñu café yi ba pare si yooyu qui lay nekk bu ñu jugee foofu di nga soxla yenn affaire yi comme euh, balancier, yeeg ak machine yi defar sachet yi yooyu y mën nañ mon ko wutal ku si soxla plus d'information bu ñu woowee mën nañ ko ko wutal dugalal Sénégal rentabilité bi avec ce genre de projet ça dépend fin quoi koy def si comme qui projet dépensé 5 millions boo ko amortiré si 2 ans on peut dire que euh, le projet est très rentable avec ce projet je, suis sûr et certain que chaque mois vous nga un bénéfice pour 200 à 300 000. 200 à 300 000, 3 ans 4 ans Vous avez un bénéfice bu bénéfice te souvent gars dañuy bëgg un projet bo xamné dañ koy jël mu and ak ñom durant seen vie ñu mag ak mom projet bobu bu màggee mëna dem ba gën yaatu ba jurat ay yeneen projet yu gëna muccu ayib té bo xolé ñun en tant que immigré li ñuy gëna focaliser wu moy comme benn projet bo xamné mo moo ñuy permettre ñu retourner delu dem Sénégal te le le plus d'informations sur machine ñata lañ koy transport bi machine bi ni mi doxé lool lepp mën leen ko expliquer ku ci plus d'informations Contactez parce que man je suis à la Corée du Sud mais n'empêche ma ngi liggéey ak euh, fournisseur yi ma amoon Chine tamit même machine bi suñu fournisseur bi mi ngi à la Corée du Sud ku ci le plus Vous buñu contacter mën nañ ko wutal machine bi envoyé ko ko Sénégal mom tamit bu bëggee comme installation bi mën nañ ko boole foofu ak ñoo xam ne mën nañ ko ko installer ba affaire yëpp mucc ayib je suis très satisfait si li ngeen suivre suñu page bi ku si soxla tamit plus d'informations si yeneen kii produit yi bu ñu woowee rek mën nañ ko wutal ki produit bi wala mën nañ ko informer ba lim soxla mu xam ko incha allah kon maa ngi leen di bàyyi ngeen suivre Okay.